الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk yi ñu ngi sant suñu borom ci xéewalam ñi nga xam ne mënuñu koo peeg di ko seedeel ne moom dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu di ko seedeel ne yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonentam ba mu yónni woon ci ñun di ko ñaan mu julli ci moom ak njabootam ak ñaka nam moo tax ba ila yawmi diin gannaaw loolu mbokk julit ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla suñu borom la mu dénkoon ña fi jiitu dénku ñu ko dénk ñiy ñëw mooy nañu ragal yàlla na yàlla yeyoo ñu ragal ko ko gannaaw ba mbokk julit gis nañu ni yàlla dugal nañu ci at mu yees mi ngi noonu bu dee li ëpp ci waa réew mi ñi ngi commencé tey doonte la boo demoon dëkk bu mel ni Arabie saoudite ñoom démb la commencé woon bu ñu waxee at mu yees wax nañ génn nañ ci am at ku nekk ci ñun yëg ni at ya ko yàlla jagleeloon war koo dund ci kaw suuf am na am at mu ca génn at moomee ëmboon ay bis ak i weer ak i semaine mboolem loo xam ni defoon nga ko ci bis yooyee da ngay gis ni ma nga lemu ak moom di la xaar la nga xame ni nii moom mooy bis penc suñu borom yàlla su ko neexoon day fixé jamono ci benn waxtu mu nekk ab bëccëg wala guddi waaye ci mbaaxam moo ñu wëlbatil guddi ak bëccëg suñ borom nee na ngir ku bëgg a fàttaliku wala bëgg a sant yàlla heure boo yégee ne guddi bi kat da nga caa gàttal lu woon nga góorgóorlu dabantal la nga gàttal lu woon ca bëccëg ba heure boo yégee ne bëccëgu démb dama caa gàttal lu woon nga góorgóorlu ca guddi nga jëm koo dabantal la nga xam ne mooy ci ay rëcc rëcc nga tuub ko suñu yeneen ci alayhi salaam mi ngi ñuy bégal ni suñu borom de mi ngi tàllal ay loxoom moom mi nga xam ne dara belul ne moom ñeel ñi nga xam ne dañoo sàgganoon ca guddi di leen wax kaay leen tuub ma baal leen waaye bu dee guddee it ma nga tàllal ay loxoom ñeel ña sàgganoon ca bëccëg di leen wax kaay leen tuub ma baal leen loolu moo tax ba nga la waaye képp koo xamee ni nii borom xel nga da ngay bàyyi xel ne bépp guddi goo xam ne romb na ci man ah mi ngi may gën a jegeel suma bàmmeel mi ngi may gën a jegeel suma borom waaye bépp bëccëg bu romb ah bëccëg bii day gën na maa jegeel suma bàmmeel gën na maa jegeel suma borom kon nga xam ne yow doomu aadama yaa ngi ci ab tukki tukki boo xam ne guddeeg bëccëg la boo war mu lay yóbbu fan la la jëme ci sa boroom loolu moo tax ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon dénk dénkaane boo xam ne dénk ko woon mag ña am juróom-ñaar fukki at bal bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di faatu kii nga xam ne mooy Abdullah ibnu Omar amagul lu mat vingt cinq ans yonent bi alayhi salaam ne ko ay ibnu Omar na nga nekk ci àdduna mel ni koo xam ne émigré nga boo xam ne da ngaa jóge woon sa réew dem ci beneen réew di fa sàkku ji teraanga wala sax nga mel ne koo xam ne da nga fay escale rek di jàll mi nga noonu su ko defee kon nga am yéeg-yéeg ne fii du këru saxuwaay fii këru jaaruwaay la saxuwaay ba mooy àllaaxira doonte ne na nga fay fexe nag fii nga jaar ca nga koy lijjantee fa ngay lijjanteelu teraanga ba nga fay am fa ngay sàggane it ba fekk fa ak toroxtaange ibnu omar daana wax ni kenn ci yéen nga la waay bu ko yàlla wërsëgalee mu dugg ci guddi na góorgóorlu lépp luy baax mu def ko lépp luy lu bon bàyyi ko ba mu toog naan danaa xaar ba suba ndax xamoo suba dana la fa fekkam déet lenn ci mbokk jàkka yi ànd nañu ak ñoom démb yóbbu kenn koo xam ne ci ñun la bokkoon daan toog fii ànd ak ñun ci tafsir bi muy ku ñu wax Malick Ngom yal na yàlla jéggal ko ci yërëm ko gis nañu ne talaata ci ngoon la jógee fële ci gannaaw kër Masaar fu ñuy wax ñaxiraat soxnam ci boppam moom mooy nettali nee na mu jiite leen tisbaar ba pare waaye foofu nam sore tax fa la jóge ngir fekk si dars bi mooy jàngale bi imam Aboubacar Sall di def ci jumaam ci takkusaan ba mu demee ba ca taliba la yàlla dogal oto fekk ko fiir ko loolu moo ko faat loolu di bind boo xam ne suñu borom yàlla mi ngi ñu koy jàngal benn jaamam bu bokkoon ci ñun daa di xam ne adduna bii kat waru garam mooy mu jaamu yàlla te jaamu yàlla googu kat benn yoon rek la am mooy yoonu jàngi xam-xam ku la bëgg a tàggat ci jaamu yàlla ci xiiru la nga dem jàngi nuñ koy jaamoo dalaa bëgg a jëfandikoo waaye mbokk jaamu yàlla mooy da ngay jàngi naka la yàlla waxe ñu jaamoo ko ko loolu it di ak ñaax goo xam ne ñi ngi koy ñaax képp koo xam ne yaa ngi dégg rawatina yéen ñi nga xam ne yéen jigéen ñi ñu ngi leen di fàttali ne gannaaw bind yi fi jaar ci jàkka ji am na njàngum spécial buñ leen jagleel altine bu nekk ak ajjuma bu nekk diggante takkusaan ak timis ngallaawaay ku ci bokkuloon mu ñëw di jàng xam leen ne it yéen góor ñi gannaaw la nga xam ne mooy dars yi nga xam ne ñëpp bokk nañu ko sunu mbokkoo Ibrahima Saarit mi ngi fiy joxe ay dars ñeel ñi nga xam ne dañuy bëgg a tàmbali am njàng wala ñi nga xam ne dañ caa sori altine àllarba ajjuma ju nekk diggante takkusaan ak timis fii ci kaw jàkka ji képp koo xam ne yàlla wërsëgal na la nga dëkk dëkk bu mel ne Parcelles Assainies wallahi amoo lay ci kanamu yàlla war ngaa sant sa borom ca mooy yàlla def na fi loo xam ne néew na dëkk bu mu ko def ci Sénégal yal na yàlla wërsëgal ñu ñu muurloo ko mbokk mi ngi noonu yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam daa nañu wax ni doomu aadama yi bu ñu xëyee ñett la ñuy doon am na koo xam ne xëy na jaay boppam boroomam daa di jël bakkanam ak alalam jagleel ko boroomam subhanahu wa taala wa min annaasi man yashri nafsahu bitigaa mardatillah jël léppam jox yàlla am na ci koo xam ne nii ma nga nekkoon ca yoonu cànkute waaye xëy na tuub na rëccu na dellu gannaaw moom la yeneen ci bàyyi islam di wax naan fa muxtiquha waaye am na koo xam ne nii xëy na génn ca yoonu njub daal di dem tabbi ja ca yoonu bu réer yal na yàlla musul ñu ci loolu loolu kon ku nekk ci ñun mbokk war a bàyyi xel sunu borom adduna bii mu ñu indi xéewal yim ñi fi may ngallawaay nañ ko jëfandikoo ngir jaamu ko suñu borom suñu borom lu nekk ci ñun moo ñu ko jox maa bikum min ni'matin fa min allah looloo tax dund gii mu la may quarante ans la soixante-dix ans la wala lu ko ëpp dana la taxawal yowmal qiyaama laaj la yow ci lan nga doon dund waaye rawatina ndaw ga ca nekkoon ndax xam ngeen doomu aadama da ngay commencé néew doole lool xale yi ba baa ñuy am fukki at presque seen jaamu yàlla du demee noonu waaye boo demee ba am ay quatre-vingt-dix ans léeg-léeg da ngay néewaat doole ci diggante boobee kattan nga la ci yàlla may sunu borom yàlla dana la ko laaj yàlla moom nga xam ne nee na maa leen bind ci néew doole gannaaw ba jox leen kattan wëlbatikuwaat delloo leen ci néew doole moom mooy aji xam te moom mooy aji borom kattan muy wane na yow doomu aadama sa xam-xam dafa limité boo yàlla guddalee say fan da ngay dem ba dootoo xàmmee sa domi bopp waaye sa kattan noonu la limité bu yàlla guddalee sa fan da ngay dem ba mboole mi jaamu yàlla dootoo ko mën a taxawee kon nga la waay profitool ci loolu mbokk julit gannaaw ba it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa la ñu laaj sunu alal ji yowmal qiyaama daa la ñu wax ne sunu alal ji yàlla daa la ñu laaj naka lañ def ba am ko biñ ko amee fan lañ ko dépensé li ñu yàlla jotal ci xam-xam ana lan lañ ci jëfee ca yàlla tax loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk àdduna kërug nattu la yow julit bu ko def kërug noos sunu borom yàlla dana la fi nattoo ay xéewal xool ndax da nga ko santam déet dana la nattoo ay tiis ay feebar ay kaso ay ñàkk ay jaaxle ay tumuranke xool ba xam da ngay muñ muñ ko rafetam déet suñu borom mu ne bis yaa ngi nii maa koy wër ko ci diggante samay jaam waaye xam leen yéen ñëpp ci man ngeen di dellu su ko defee kon ñu xam ne mbokk am ate ngi jeex ci ñun at moo ne da ngay gis ne bi muy jeex suñu borom yàlla dogal na ca la ko neex borom bi nee na maa moom nguur mi ngi noonu may jox nguur ku ma neex may koy xanc ku ma neex sama jaam yi ku ma neex yëkkati sama jaam yi ku ma neex suufeel sama jaam yi ku ma neex ah daa di koy teral ku ma neex ma toroxal ko may jël guddi dugal ci bëccëg jël bëccëg dugal ci guddi may fekk lu dee ma génn ci lu dund fekk lu dund ma fekk ma génn ci lu dee donc suñu borom mi ngi noonu mooy faalu li ma yurit yow doomu aadama ci programme borom boobu nga bokk amuloo leneen lu ko mën a justifier mi ngi noonu sunu mbokk boobu Malick Ngom ba muy jóge këram ne maa ngi dem dars ba ca ñëw ku ne ko woon keroog ngay mujj gis sa njaboot keroog ngay mujj dugg sa kër man nam dana ko jaaxal ndax feebarul dara dalu ko waaye mbokk julit ndax programme boobu nit mën naa am ay fexe ba mucc ci déedéet tey dëkk bu mel ne Sénégal wallahi booy xool juróom benn weer yi waxuma at de juróom benn weer à peu près yàlla subhanahu wa taala jël ne ci ñun ay kilifa yoo xam ne ñépp ko ñoo leen xam ana kan ci yéen moo xamul Cheikh Tidiane si Maktoum mi nekkoon xalif général di Tidiane ana kan ci yéen moo xam Abdul Fatah bii gay na partner ana kan ci yéen moo xamul kan mooy Moustapha Cissé ak lan la jiyee ci Sénégal ak li ko wër ana kan ci yéen moo xamul ki nga xam ne moo ñu tàggu démb di Abdul Aziz xalif général di Tidiane ñooñu ñu doon tuddee kilifa yi diine waaye ana kan ci yéen moo xamul Habib Thiam mi nga xam ne nekkoon na premier ministre ci Sénégal ndomba tànk bu nekk mu takku ko fi ana kan ci yéen moo xamul kan mooy jibalay ci ka ministère bu nekk mu jiitu ko fi ana kan ci yéen moo xamul milliardaire Alioune Sow tabax Sénégal ak tabax réew yi ko wër mbokk ñuy ñëpp ci jëri presque juróom benn weer lañu suñu la leen suñu borom semp yóbbu leen amul kenn ci ñun ko toog fii wala ku may nar a dégg lu dul xam ne ne ne amul lu mu am ci àdduna lu dul ñooñu moo xam ñoo ko ko ëppale teewul suñu borom yàlla jël leen fam ko neexe loolu kon mu ñuy wane ne mbokk jurit at yaa ngi nii di dem ànd ak programme borom bi subhanahu wa taala tey yàlla subhanahu wa taala dugal nañu ci at mi ana kan ci ñun moo am garantie ne ni du ci at mi lay wuy ji boromam kenn amu ci ñun garantie kon nañu xam ne adduna mbokk nañu ko jàppee benn moyen bu ñuy jëfandikoo ngir daje suñu ngërëmal borom bañ koo jàppe benn jubluwaay boo xam ne dañuy fàttaloo suñu borom suñu borom yàlla da dana la wërsëgal ay misaal yu bëri pour yéena yow doomu aadama xoolal tey jii boo demoon sa kër añ ba regg naan sa ndox mu sedd naan say jus su defee sa biir ay waxtu fooy mujj ak moom fa ngay mujj ak moom tuur ko dalay won ne addunaa ngi nii nekkatee bànneex la rek buy naxaate xoolal lan la nga sii mënti rek xoolal fi mujj tey mbokk kenn ci yéen tey jii da ngay xool bu dee ne ñi ñi nekkaloon wër ñu ñi ay wayjur lañu ñi ay dëkkandoo lañu ñi ay xarit lañu ñaata nga ci xam tey ñi nga tëdd ci armeel ya et pourtant yéen a bokkal programme adduna loolu bi ni misaal bu lay won ne adduna nekkati kërum na xaasee rek la bànneex su ndaw la waaye mbokk jant bi nga xam ne mooy fenk jant bi nga xam ne mooy fenk di la jàngal yow yaay kan maa ngi fàttaliku oustaz Moussa Ba nekkoon amiru da'wa bu al-Falah ba mu fàttaliku ko imam Aboubacar Sall remplacé toog nañu fii benn conférence unité de sept lépp ñaar fukki at mu naan gis ngeen doomu aadama bis boo xëyee jant bi mi ngi lay jàngal yaay kan dana fenk ñu ne judd nga daa di néew doole lool muy màgg ba digg bëccëg nga daa di nekk sa digg programme ñii mën a limal sànq yépp nekkoon nañ tiim Sénégal mboolem décision yi kenn daaw leen ci fàtte waaye da ngay dem ba mujj jant ba daal di jàllar bi ko jëm tàkkusaan jàllar bi ko jëm timis néew doole lool gannaaw ba jant bi solo bés bu ne jant bi jàngal la yow yaay kan yow doomu aadama kon nga la waay yi góor góor ñun sa kenn kanal kattan moom mi ñu doon jox misaal boobu ba mu faatoog léegi ëpp na ñaar fukki at la chaque fii loolu da ngay gis na man ñii ak yéen ñii ñun tamit gis na na ñëw ñun ñëpp ñu def na nga xam ne mooy jant bi def muy wane ne addunaa ngi noonu da ngay fenk daa di am kattan gannaaw ba daa di sow loolu kon ñu war a góorgóorlu suñu kemtaleel kattan ci xool ak mii nga xam ne génn nañ ko da atum lislaam nekkoon atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ca gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam at mu bees mii nekk atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent di 1439 ca gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di jëfandikoo la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon kii nga xam ne mooy Muaz ibn Jabal daana ko waxee Muaz foo mën a nekk ragal fa yàlla jalla waala heure boo yëgee ne ay njuumte dal na ci yow gaawul def lu baax lu baax day far lépp loo xam ne ay njuumte la kon képp koo xam ne sagganoon na ci at mi ñu génn nga la way na góorgóorlu ci at mi ñu jublu def ko atum dabantal ca loolu kon yàlla subhanahu wa taala dana ci doon koo xam ne nii kuy far la nga xam ne mooy ay bakkaaram ku mel ne Omar ibn Khattab radiallahu anhu loolu la doon wax daan wax ay yéen nit ñi ku nekk ci yéen na taxaw di xisaab boppam balaa taxaw yowmal qiyaama ñu koy xisaab ku nekk ci yéen na jéem a peser boppam lan la def ci lu baax bala ñu ko peser yowmal qiyaama ndax laa chaque ne mbokk julit doomu aadama lu bëri xam nga sa bopp boo sàgganee xam nga boo nekkee ci góorgóorlu xam nga ngan la waay profité leen suñu borom mi ngi leen di wëlbati ci xaal jëm ci xaal yonent bi alayhi salaam daan wax góorgóorlu ci juróom balaa juróom di leen fekk yow mi nga xam ne yaay xale góorgóorlu ci jaamu yàlla li nga man mag mënu ko góorgóorlu balaa mag a ñëw yow mi yàlla wërsëgal nga wér e waay góorgóorlu ana ñaata dëkkandoo ngay dégg ñu ne diw de daa paralysé diw de ma nga hôpital diw de mi ngi nekk dans le coma loolee kat xamal na jomb la kon góorgóorlu ci loolu bu la yàlla wërsëgalee alal ngal la waay loo man ci lu baax gaawal def ci xéewalug yàlla la kat heure bu ko neexee mën na ko nangu bu la yàlla wërsëgalee ak jot ngal la waay góorgóorlu jéem caa jàng sa diine jéem caa def lu baax xamoo kañ la la ñàkk jot di dikkal waaye dund gii nga xam ne nii it xamoo ñaata moo ci des nga la waay góorgóorlu ci sa kéemtaleel kattan balaa la nga xame ni nii ak jeexam di ñëw rawatina képp koo xam ne yoral nga mbokk julit yi àq nga góorgóorlu delloo leen àq yooyee ay yéen mbokk julit ñi ngi nii day di góor di jëm ci suñu borom subhanahu wa taala ak a texe jaam bi nga xam ne day xam ne kat lii di de sama desutu dund nekkul sama loxo naa profité góorgóorlu balaa bañ a bokk ci jaam yi nga xam ne heure bu leen sukuraat dikkalee ñu naan ay rabbi irjiun ay yàlla nañ ma delloo ma dundaat tuuti ngiree ma def lu baax ca la nga xam ne moom laa bàyyi ngan la waay mbokk góorgóorlu leen ci ku nekk ci ñun di bàyyi xel fu mën a toll tey jii day maa ngi ci tisbaar moo ne mën na am day tisbaar yi ëllëg fekk ma ci biir suuf te wallahi mi ngi noonu xaw ngaa mën a wàcc yàlla ne am na ñuy dund ak ñun ci tisbaar yi tey jii ay junni junni daan dugg tisbaaru su bëggee ci biir suuf kon góorgóorlu bala ngaa bokk ci ñi nga xam ne bu leen malaaka yi dikkalee ñuy rëccu fekk na ñoom préparé woon nañu seen bopp mbokk at bii ñu génn day am na ñu ko feesal lool ci ay caaxaan ay njaaloo ay lekk riba ay nax nit ñi ay yàq diggante ay kaza wa kaza am na it mu ko feesal lool ci julli yu bari ay koor yu bari ay sarxe yu bari ay istixfaar yu bari zikrullah yu bari mbokk ñaar yooyu day seen témoignage ci kanamu yàlla du mën a yem suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ñi nga xam ne day dañoo doon ñi gëm yàlla ca boole wuñ ci ay toon ñooñu ak dal dana leen ñeel ci àdduna dal dana leen ñeel ci àllaaxira ku nekk ci ñun na jéem a góorgóorlu xoolaat kemtalaal kattanam te xam ne bëccëg boo dugg mi ngi wax ak yow nan la ay doomu aadama góorgóorlul ci man man kat musuma ñëw te dootuma ñëw ba ilaa yawmi diin loolu ñu bàyyi ci xel bu baax musuma ñëw te dootuma ñëw ba ilaa yawmi diin te doomu aadama góorgóorlul man na am man maay sa mujjeelu bëccëg ci kaw suuf guddi ga it bu ñëwee dana la wax lu mel noonu profitel ci man man mii kat musumaa gis te dootuma gisati ba ilaa yawmi diin te it mën na am guddi gi mooy nar a nekk sa mujjeelu guddi ci àdduna su ko defee ku nekk ci ñun jéem a góorgóorlu bañ a sànq waxtoom mbokk julit waxumaa ni du doon kuy jël waxtoom di ko def ci loo xam ne merum yàlla subhanahu wa taala la ca nekk waaye jullit dafa war a moytu di sànq waxtoom ci loo xam ne amalu ko benn njëriñ lépp loo xam ne ban ko xoolee benn ngërëmal yàlla amu ca ngam la waaye bàyyi loolu ca xam ne lu la jëriñul ma ngi lay lor ca xam leen ngeen góorgóorlu yi temps boobu di romb ci yéen ngam la waaye ngeen naatal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal wax ne képp koo xam ne nee na subhanallahi alazim wa bihamdihi jëmbatal nañ ko garab ca at ca ci biir aljanna zikrullah yi romb yomb lool albaqiyatu salihat ñu baril fu ñu mën a toll subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar jéem a utal suñu bopp ay programme bokk na loo xamee ne nii da ngay gis ne xalaatkat yi dañ koy wax dañ naan doomu aadama yi téeméer boo gis ñetti nit ñoo ci programme ab programme waaye doomu aadama sa dund gi nga raway waajal ko benn ay programme man kat julit laa waxtu yi mooy sama waxtu julli waaye waxtu yi mooy sama waxtu jàng alquran waxtu yi mooy samay waxtu naafila waxtu yi war naa cee seeti sama mbokk julit waxtu yi war naa cee la nga xam ne def ak doxu mbokk wala lépp loo xam ne nii da ngay gis ne benn programme la buy tëral ngiree loolee nekk saw yoon ngiree loolu bañ laa sàgganal kon mbokk julit ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo teral ci ñun at mu yees mi yàlla nañu ko defal muy atu jàmm ak xéewal yàlla nañ ko defal muy at buñ ko jébbalul yàlla nañ ko defal muy at ba ñuy débbale ngërëmam képp koo xamee ne nii bokkoon nag sunu mbokk jurit yi ko fekkewul yàlla yàlla subhanahu wa taala defal leen barzaq bu sedd defal leen jardin ci jardin àjjana ya ca ñëpp ñi nga xam ne ni it ñoo fekk at mi yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal leen muy at moo xam ne la gën a rafet ci jaamu yàlla daañ ko def ci biir at moomee ba mu seede leen aw yiw ci seen kan mu borom اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين